ak xéewal gi mu doon ci xeetu doomu aadama yépp ak yëkkatikuk aw xeetam ak notuk diineem not gi diineem di not diine yépp ak yokk gi mu yokk saa su ne naqari na leen tàng seenub xol ba àgg ci dofloo leen ba mënatuñoo jàpp se téye seen bopp ba lu ñu yaakaar ne buñ ko defee mën nañ caa xotti war may ku tedd ki baa war may téereb yàlla bi baa may ku jege ku tedd kooku ak ku jëmmal téereb yàlla bi ñu di ko saboote di ko ñaawal ci ay desin walla ci ay wax walla ci ay jëf loolu sëriñ bi mu ngi yëg xam ne te ñun ñëpp ñoo moom ànd loolu ci xolam ci sunuy xol ak xoli julli yi nga xam yëpp ñu ngi yëg ñu ngi naqarlu taxawaay yu noonu di ko ñaawlu te di ko fas yéenee faye faye mooy li ñuy bañ mooy am yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afahim wallahu mutimmun nuurahu walaw karihal kaafiruun li ñu bëgg rek mooy fay leeru yàlla gi muy lislaam jullit yi génn ci seen pas-pas bàyyi ko dellu ginnaaw mel ni ñoom l'islam fay loolu lañ bëgg waaye loolu du am l'islam dana des di di jolli leer gay jëm kanam jullit yi dëgëral seeni i pas-pas di tënku ci seen diine l'islam di yokku te ci mën dara loolu mooy am barakatul muxtaar yi laysa tan xarim wa nuruhu saatéon laysa yan say barke bi yonent bi du fi jóg mukk leeram ga du fi jóg mukk donn gi ko sëñ donn it loolu it day sax ba faw du fi jóg barakati yi barakatun laatan xarim tawsiati kamadadi laayan sarim kon yonent bi barkeem beeg leeram gi du fi jóg day yokk ba faw sëriñ Tuubaa barkeem bi mu doon ci yonent beeg leeram gi du fi jóg ba faw kon li leen naqari day wéy di leen naqari ba ba ñuy dee te du te loolu du fi jóg lu ñu mën di def day yokk da koy yokk ak yokk da koy gën a yëkkati di ko gën a kaweel di ko gën a euh, dëgëral euh, kon euh, nañ bàyyi ñay wax ñuy wax te ñun ñuy fas tey jëf rek waaw fas ak jëf moom toroxal na kuy wax moom kon ñun jullit nañuy fas te nañuy jëf yéefar yi nañ leen di bàyyi ñuy wax rek aka reetaan aka def yëf ñu dem ci leen fi bu ëllëgee ñu dee dem sawara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi